gannaaw bu nu sant yàlla mi nu baaxee ñu dajee tey ci genn daara ci daara yi dajeek kenn ci sunu sëriñ fas yéene jël ab dars boo xam ne bii ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñu suñu njëriñ defal ko aji wax ji ak way déglu yi tey incha allah conférence am walla muhaadara boo xam ne bii onwaan bi wala adresse bi mooy jenn aaya ci alquran ñu xam ne yàlla da ciy laaj wala daa mel ni ku ciy laaj bokk mu ne ndax xool yi dañ koo kànnaare dañ koo tëj te loolu am na lu ko jiitu ba muy wax melokaane doomu aadama yi ak seeni sikk di wax balaa ndax dañoo seetantalul Qur'an wala boog dañoo tëj xol yi loolu mooy onwaan bi incha sunu sëriñ al ustaaz al docteur Cheikh Mouhamad ibnu Ahmad Lo hafidahullah war ñu ko jéem a gaaral may sas sama bopp di sas képp kuy déglu ñu jàpp ne ñun ñoo moom wax ji keneen moomu bu boobaa keneen kuñ ca mën a dolli dina fekk ñun ñu jariñu moo gën léeg-léeg ni ñuy faral def bu ñuy déglu ñenn ci nun boog saa boo déggee jenn aaya rek wala benn xadis nga dal di ko jox kenn la ngay def yow du bari kon incha allah nii la ñu fas yéene doxalee liggéey bi mooy daañu bàyyi ki nga xam ne mooy kilifa daar ji ñu nekk di Aba Ibrahim Abdallah Maam Góor Njaay mu yëkkati ay kàddu ngir dalal gan ñi ndax ñun ñëpp tey ay gan lanu xanaa ñu ni moom sax ak gan la waaye ganu suba dee dalal gu ngoon kon bu dalalee yu ngoon yi ba noppi gani démb yi ñoom ñu ngi ci dëkk bi incha allah seen kàddoo ngi ci kanam bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kàddu yi du gudd mooy bismillah dal leen jàmm ci markas abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhu daara ji nga xam ne ma nga sosoo yëmbal di dox ba agsi fii toogandi fi ngir jàngale alquran ak shariatu muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam ala manhaji salafina salih radiallahu anhum ñu ngi leen di wax bismillah dal leen jàmm du ñu guddal kàddu yi rek lay tënk mu nekk kàddu yi dalal yi waaye dinaa bi mooy dégg ngeen bi am ala qulubin aqfaaluha ab laaj la bu borom bi subhanahu wa sëriñ bi bëgg nu cee jariñ waaye man lan lay tën bi mooy nit ki bu bëggee dara bëgg mu ñëw di ko xaar di ko xaar ba mu agsi léeg-léeg mën naa sàggan ba du ca jot wala bu ca jotee du ca jariñ dama leen di misaal xam naa nitug ndakaaru mën na koo bañ a dégg lool waaye mën na cee jariñ bu ma ko misaalee nitug kaw ba noppi dinaa ko jox na faram-fàccee nitu ndakaaru ca àll ba ni ndox daan manqué bu ñu demee ba nawet jot ñu defar seng yi waaj ngir taatan taatan mooy dékkandu ndox mi muy taw ngir nga mën a am ndox soo dëppee sa ndab lu taw bi bari bari yow doone tawut waaye la la xañ ndox mooy sa ndab loo dëpp boo xamul dëpp mooy ndëpp li nga waroon a taaju ubbeeku nga wët bëti ko wan ko këbeer gi féete bunt bi féete suuf kon ndab li day tooy rek waaye du def ndox bu ma ko doon misaal ci nitub Ndakaar mooy boo bëggee root ci robinet bi ubbi robinet bi muy xelli nga fopp paan bi juutal ko li waroon a dékku ndox mi di ci sotteeku moom këpp kon paan bi day tooy rek waaye du amum ndox loolu waliyaasu billah mooy jur maasa qaala anifa ki wax wax ba jeexal nga naan lu mu doon wax kon nag maa ngi bëgg ñun ñëpp ñu amuk teewlu amuk déglu amuk fas yéene jariñu ni ko Oustaz Babacar waxe bañ a bokk ci ñi nga lu jóg ñu defee ne ñeneen lañ koy waxal waaye bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañoo am seen nopp fu ñu koy dégloo dëgg fu dëgg mën a jógee moom am na foofu bu fa jógewul rek duñ ca dégg ñaari yi benn baaxu ci maanaam wax ji jóg nga xam ne wax ji dëgg la waaye boo demee ñoom diwa tax ñu di ko wax boobu baaxul wala wax ji jóg ñu wax ko ba pare nga nangu ne dëgg la waaye yow sët ki la war a wax dëgg waxagut nanu moytu lool loolu rek mooy sama kàddu tan bi ñu ngi ñaanal sunu kilifa gi yàlla defal ko tawfiq am na nag lu ma taabiroon dama koy denc ba ca kalimatu shukru ma leeral ko insha allahu taala ko allah ya cheikh bismillah fadal inna alhamda lilah nahmaduhu wa nastainuhu wa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 xam naa li ñuy tàmbalee mooy di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dolli daara ji ak borom daara ji ak ñi ko wuy si tawfiq di ñaan borom bi tabaraka wa dolli daara ji barke ak donga yeeg jàngalekat yeeg sëriñu daara bi te def ko mu bokk ci këri xam-xam yi nga xam ne diine daf fi dekkeewaate Euh, gannaaw loolu it di ko jégglu ni ñuy jéggloo mbokk yu bare bari ndax waxtaan wi wax dëgg yàlla ba mu waree am jiitu woon na tey waaye ay gàllankoor yu bari ak i xat-xat moo ko yeexal ba mu ñëw ba agsi ci waxtu wi te di nag sunu borom tabaraka wa taala moom moo ko dogale noonu xam naa ne ndax lenn lu nekk wutal na ko waxtu woo xam ne fa la war a amee su fekkee déglu nañ li sunu mbokk mi cheikh abou bakar tudd ci programme ak diggante digganteeg tisbaar ni mu jegee day mel ne kon waxtu wi xaw naa xat euh, donte nag xaw nañoo yeex a tàmbali yeex a tàmbali goo xam ne xëy na ci organisation bi lay jóge mm-hmm. ndax fukki waxtu ak benn lañ ma waxoon te defe naa ne fukki mm-hmm. waxtu ñaar li ko tey jot bariwut kon duñ guddal ci muqaddima bi introduction bi duñ ci guddal lool dañuy daal di dugg ci biir waxtaan wi te jéem koo gaarale ci anam goo xam ne dana mën a dëppook programme boobu ñu tudd man fee xaj waaye duñ ko gaarale ci programme bi ni nga xam ne rek noonu lañ ko waajale woon ala kulli xaal su fekkee ne programme ba yiñ lim war nañ koo def moom faw ma gàttal xolu waxtaan wi mbokk yi moo di ni ko mbokk mi waxee am ala qulubin aqfaluha moo ndax xol yi dañoo tëju moo ndax xol yi dañoo tëju mbirum xol mbokk yi lu doy waar la léeg-léeg ay mbir dafay am yu leer nañ weex tàll nga xam ne mbir mi ku ko gis waroo cee da nga lii moom ñaar waruñu cee werante ndax leeraay boo xam ne leer na ko waaye nga gis mbir mu leer moomee yow mi gis ba ne dafa leer ba kenn waru cee werante gis ñeneen ñoo xam ne dañoo tëj seeni xol ba mbir moom yi la nga ciy gis yow gisuñu ko wala buñ ko gisee danañ ko interpréter ba tudde ko noo xam ne bokkut ak na nga koy tudde mu ngi mel ne bëccëg rek boo xam ne jant bi fenk na nga ne lii moom kenn warta werante ne ci bëccëg lañ nekk beneen waay ñëw ne la ci guddi lan nekk di ko wutal nag ay lay loola na muy suufee léeg-léeg nit jàpp ci dara loo xam ne diine la ko tudde di ko layal lay yoo xam ne na muy suufee noona la layal bëccëg ngir bëgg mu doon guddi noona lay suufee waaye loolu lu koy waral mooy xool yu tëju boo xoolee borom bi tabaraka wa taala kéemaanam yim dëgërale yonentam yi ñu ko tudde mujisatul anbiya muy yu yoo xam ne doomu aadama miinu ko sunu borom tabaraka wa taala di ko jaarale ci loxol yonent ngir bëgg ay nit gëm ko loola boo xoolee ne muy leere nga wëlbatiku geesu gis bët yoo xam ne dañuy gumba loola duñ ko nangoo gis suñ demee ba ne lii xar baax la lu xotti baax la it lañ koy tudde daal mooy loo xam ne benn ak njabar lay doon wala bu fekkee ay nettali la yoo xam ne yu wéyoon la wala yuy ñëw ñu tudde ko asatirul awalin ñu ne lii ay léeb la yoo xam ne nit ñi ñoo ko gardé woon denc ko rek defatu xolante moo tax borom bi tabaraka wa taala wax na ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko wa minhum man yastamiu ilayk am na ci ñoom ñoo xam ne boo toogee di wax ñu ngi toog di la déglu وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا nee na waaye ñooñu ñu ngi toog di déglu waaye seeni xol dafa muur seeni nopp yitam dafa am ab saañ maanaam la muy dégg bu ñu waxee ne nopp bi dafa amub saañ firiwul ne baat ya muy wax nekkul di ko dégg waaye segg gañ war a segg baat ya mu àgg ci xol ba xol ba man caa jariñoo cër ya lépp loola moo dul àgg kon nopp ba daa saañu ndax xam ngeen ne cër yi doomu aadama yor muy bët yaag nopp yaag bakkan yaag yi nga xam ne ci la ab xam-xam di jaar ay jaarukaay rekk la yoo xam ne da cay jaar mu segg ko yóbbu ko ci biir yóor gi mu daal di doon xam-xam nii nga xam ne bët bi moo lay seggal dara nga xool ko xam ne lii lu wert la nga xool leneen xam ne lii lu weex la loolu ay opération yu baree baree bari moo fi jaar nga doon a xam ne lii dafa weex bët bi moom day capté rek sànni ko beneen appareil appareil boobu jël ko jox ko yuur ga mu wëlbati ko jaarale ko ca xol ba ci lu gaaw a gaaw loo xam ne yàlla rek xam nu mu gaawee nga daal di xam ne lii daa weex lii dafa xonq lii dafa ñuul nopp bet noonu lay def li ngay dégg mu doon ay kàddu dégg ga bokkul ak xam nga la la ko gën a mën a leeral rek mooy nit taxaw fi sa kanam di làkk-làkk woo xam ne déggoo ko yaa ngi koy dégg bu baax a baax ci nopp yi waaye nag lay segg muy jàll ca xol ba mu xam ne lii la wax loola seggut su ko defee borom bi tabaraka wa taala bu wax ne wa fi aadanihim waqra nopp yooyu ñu saañ waxuñu ne dégguñu kàddu ya ñuy wax waaye segg gañ koy segg mu àgg ca xol ba mu xam segg googee amu fa borom bi teg ca ne wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha kéemaan goo leen mën a woon ci àdduna duñ ko gëm xatta ida jaauka yujaadiluunak yaqulu alladina kafaru in hada illa asaatiru alawalin kon loolu mooy shaahid bi loo leen mën a wax ginnaaw xool ya tëju na nopp ya tëju na nangootuñoo dégg dëgg duñ la mën a gëmal benn kéemaan boo leen mën a won ci àdduna dañuy ñëw kay jaamaarloog yow di werante weddi weddi gu fés loo leen jox ñu ne lii asatirul awalin la lii daal léebi maam ya rek la noonu lañ doon tudde alxuraan ak yeneen téere yi fi jaaroon ñoom ñi nga xam ne gëmuñu la la ciy jox misaal xoolal euh, bu toppoon yonent yépp benn yonent bu ne lii ma wax jaamaarloo naa ak moom digganteem ak ay nitam waaye fa mu gën a fese mooy yonent yàlla Muusa moo tax nettalib Moussa ci alxuraan dafa bari lool lool lool dafa baamtu ay yoon yoon yoo xam ne beneenub yonent bu am euh, ak tudd ci alxuraan ni qissatu Moussa répété wu ci alxuraan beneen yonent bu ko am amul lu tax mooy dafa gën a fis ci ci loolu misaal moomu ma joxe ndax dafa daje woon ak koo xam ne ku bon lool la te am doole lool te mbooloo mu bari itam topp ko nag muy Firawna Moussa alayhi salaam borom bi tabaraka wa wone na ay kéemaan yu bare bare ci loxoom yoo xam ne wax dëgg yàlla ku sab xol tëjuwut da nga xam ne lii ci yàlla rekk la mën a jóge kii itam ab yonent rek la bu mën a jóge ci suñu borom ànd ak loolu Firawna gëmu ko Firawna taxaw ci kanamam kontar ko kontar bu metti defi ko sax def ay taxadiyaat yu mettee metti ànd ak loolu na perte na taxawaay boobu ma doon taxaw ci kanam Muusa perte na sax ba pertaale lenn ci ña nga xam ne ñoo ko gëmoon lu tax mooy bi mu yaakaaree ne Muusa li muy indi dëgg la kéemaan la waaye ak njabar la firawna dana jabar moom kenn daq ko kenn woo ña dàqoon a jabar ca réew ma ñu daje mu dig leen ci ay xeeti neexal ak xeeti jege buur bi muy Firawna yoo xam ne su fekkee ne def nañ lim leen di wax muy not Muusa neexal yooyu dana leen ko jox ñooñu itam daal di am mbégte ca loola lool ñi joxante ab dig seen diggante ak Muusa alayhi salaam foofu su fekkoon ne ay xol yu tëju nekku fa aajowoo googi na aajowoo jabar yooyu ba leen di dajale rek lam doon woote woo mën nañ cee sukkandiku ngir xam ne du dëgg ndax moom dañ leen woon yàlla la moom ci boppam nee na woon xamaluma leen jeneen yàlla judul man ginnaaw ak yàlla la doon woote nag te mbire ngi mu teew mu ko jaaxal ba muy dajale jabar yi nekk ci réew mi naan kaay leen jàppale ma su xol ye tëjuwul woon foofu kon ñi xam ne kii li muy woote ne yàlla la amut waaye xol yaa tëju foofa kon am ala qulubin aqfaluha moom ci boppam doyoon na ko mu xam ne moom mii du dara néew kàttan gi mu néew kàttan bay dellu ci nit ñi di sàkku ci ñoom ndimbal waaye loola doyu ko ba tey ndax moom ci boppam xolam dafa tëju ñoo ko toppoon it ci jamono jooja seeni xol dafa tëju bi mbir mi ñëwee nag na teew mbooloo mi seetaan si teew jabar yi teew Muusa teew aku yatam jabar ya sànni seeni njabar muy def yu kéemaane yu doy waar ci kanam nit ñi Muusa sànni aw yatam mu ñëw lekk ya doon taxawaalu jaan yaag ya doon jommal nit ña yat wi wann ko dellu doonaat aw yat dellusiwaat Muusa yoru yatam taxaw foofa su ay xol tëjuwut woon ginnaaw jabar yi gën a kawe ci àdduna dajale na leen ñu def lañ man ba noppi am leneen lu leen féete kaw su xol ya tëjul woon ñi xam ne kon la féete kaw loolu yàlla dong la mën a doon loolu moo tax jabar yi ci seen bopp nga xam ne seen xam-xam àggoon na fa njabar yam ñoom biñ gisee lu leen féete kaw dañoo daal di xam ne fii la yëf yi yam kon leneen lu mu mën a doon rek loolu yàlla la waaye njabar mënu ko loolu moo tax ñoom ñu daal di tuub fa saasa tuub ànd ak Muusa waaw firawna mii nga xam ne ñii la yaakaaroon ñoom ci seen jëm bi bopp dem nañ ba jommi wëlbati tuub ànd ak yonentub yàlla bi xanaa su fekkoon ne moom xellu na bu ñu tuubee moom mu war a jàpp ne mbir mi kon jéggi na dayo mu mën a tuub wala xolam mën a ubbi ko waaye déedéet daf ne rek kii mooy seen jabar bu mag bi leen jàngal njabar xam naa ne kon xol bu tëju foofu lay yóbbe nit ba mu àgg fa bépp xol bu tëju bu nga xam ne muur nañ ko ba njub mënatu ci dugg foofu la seytaane di àgg ak moom lépp loo xam ne feeñ na lu doomu aadama war a mën a sukkandiku gëme ca danañ teg ci kanamam leneen loo xam ne foofu lay sukkandiku ngir bañ a gëm borom bi tabaraka wa yemul ak ñoom foofu mu wàcce ci firawna aku nitam ay kéemaan yu bari yoo xam ne yépp ngir gëmloo leen moo tax mu ne fa arsalna alayhim tuufaan borom bi tabaraka wa xëy na sotti inondation boo xam ne dañu xëy xëy rek gis ndox mi walangaan ci seen biir te gisuñu taw loolu njom mi te la te xamuñu fu mu jóge kon xam na ne du yàlla wal jaraad ñu xëy xëy ñu yebal leen njëréer yoo xam ne du waxtu njëréer ndax njëréer liñ ca xamoon mooy mbay day am ñor ñi jóg di ko yàq waaye noor boo xam ne kenn gisul dara ab désert boo xam ne dara saxu fa foofa du palaasu njéeréer ñu xëy xëy dëkk bépp fees dell ak i njéeréer ba ñuy demit dañoo jekki-jekki gisatuñ leen kon ñii war nañoo jommi wala war nañoo waaro wal xummala bi loolu amul njariñ suñu borom tabaraka wa taala leen ay teeñ ca dëkk ba wala yaasu billah fépp doon ay teeñ foo jaar rekk mu fees dell kon loolu war naa mën a tax a gëm wa borom bi tabaraka wa taala wa dafaadia moo ca tegu ak mbot ay mbot ba teeñee jàllee ay mbott xëy tegu ca noonu lañ doon tegtaloo mbott yu fees dellu ci dëkk ba ci néeg yaa kaw lal yaa foo jaar fu ne ay mbott la te kenn xamul fu ñu jóge bu ñuy demit doo xam fan lañ jaar ba dem wa dama borom bi tabaraka wa taala leen deret yoo xam ne dafa xëy xëy na inondation ba meloon ca ndox ma deret ja mel noonu ca biir dëkk ba waaye ñii nit kay bu fekkee ay xol tëjuwut war nañoo dellusiwaat taxaw nag dellu ci yonentub yàlla bi laaj ko lii lu mu doon jéem a gëm wala ñu jéem a ubbi seeni xol waaye loolu lépp ànd ak ne borom bi tabaraka wa taala ayatin mufassalaat la ko tuddee muy ay kéemaani sunu borom tabaraka wa taala yoo xam ne yuñ faram-fàcce lañ yuñ détaillé lañ yuñ leeral lañ ba mu leer ci bët ak ci xol ànd ak loolu lépp ñoo ñu gëmuñu ànd ak loolu lépp lam yu lam yuminu maanaam gëmuñu borom bi tabaraka wa taala nee na fastakbaru wa kaanu qawman mujrimin maanaam seen rëyaay ga moo tax ñu topp na lànk bañ a gëm gannaaw loolu ñaari mbir yu mag a mag a mag am ci histoire na ak nitam wala diggante mag Muusa day wane ne xol bi bu xasee tëju moom ah xanaa suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën a ubbi waaye ngir mu wëlbatiku lu jafe-jafe lay doon borom bi tabaraka wa taala mbugal yu metti yooyu bi mu ko wàccee ci seen kaw nag ba mu metti ba tar nuñ mujj def mooy delsi ci Muusa ne ko na leen ñaanal na leen ñaanal wala ma waqa alayhim rijs bi nga xamee ni mbugal mu metti ma tàbbi na ci seen kaw qaalu ya Muusa du lana rabbak yow Muusa ñaanal nu sa boroom waxuñu sun boroom ndax ñoom jaaxle nañ luñ jàppoon ne rek lu leen doyoon la dem nañ ba loole ñu ngi ci sikk sàkk léegi kon ginnaaw kenn ak Muusa te moom moo notoon jabar ya moo def lii moo def laa te mbir maa ngi toftaloo ay mbott ak ay teeñ ak yu kenn xamut yu mu doon a ngi ñëw fees dellu ci dëkk bi dina rek ah yaa Muusa ud'u lana rabbaka bima ahida yow mi am ko lëre ak moom la in kashafta anna rijza su fekkee ne ñaan nga sa boroom ba mbugal mii wàcc ci suñ kaw dañ la nu'minan na lakk soo ko defee danañ gëm wala nursilanna maaka bani israil soo ko defee itam mbooloo mii ma toppoon mépp danaa leen yabal ñi bokk ci ñi lay topp kon loolu la na wax yónnee ci Muusa ne ko nanu ñaanal nun kat sonn nan ndax mbugal mii nekk ci noonu dañ su ko defee nu ànd ak banu israil gëm ko ah Moussa daal di ñaan te ànd ak loolu foofu bu ñu delsee xalaataat situation boobu danoon xam ne moom mii ci boppam ak ñi ko topp yëpp amuñuy xel ndax ginnaaw kañ toppoon defe ne yàlla la jaaxle na nag bay yeble ci Moussa mi doon ab noonam ne ko nanu ñaanal boroomam kon xam nañ ne moom duutu boroom kon léegi ginnaaw mi ngi séentu ndimmal ci yàllay Moussa xam na ne kon yàlla ju néew doole la moom su fekkee yàlla la itam kon loolu doyoon na ngir ñi ko topp ñépp ñi àndandoo bàyyi ko ne ah nun kat kon nan bàyyi ji yàlla ginnaaw amul doole ba mi ngi sàkku ndimmal ci yàllay Muusa kon nan dem ci yàllay Muusa benn yoon waaye taxul ñu def loolu ndax ala qulubin aqfaluha loolu mooy mbir mi xol ya dañoo tëju waaye loolu taxul mu am borom bi ne falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum baaliguuhu ida hum yankusuun borom bi tabaraka wa taala Moussa ñaan yàlla teggil leen fitna yooyu leen sonaloon lépp bis bu set rek dara xëy ñëw lu bokkut ak li ñëwoon démb borom bi ne biñ leen yëkkatilee mbugal moomu teewul ñu fecc seen kóllëre lañ waxoon ak Moussa defuñu ko maanaam gëmuñu kon xol bu tëju mu ngoog foofu lay yóbbu nit loolu mooy benn xew-xew bi beneen bi ci des di xew-xew bu doy waar mooy bi na demee nag ba jaaxle ci mbirum Muusa ak fitna yi su bëggee fitna ñëw ñëw su ñaanee boromam fitna ja dañ mu ne ah kii kat bu fi yàggee nit ñi danañ ma mujj weer di gëm ko kon nag li sës rek mooy jéem koo rey daal di woo banu Israël gépp ñu dajaloo ne dañuy rey Muusa ak ñi ko jot a gëm Moussa génn ànd ak ñam àndal boroomam digal ko ne ko na génn dem bi génnee mbooloo mi topp ko maanaam Firawna ak ñam àndal ñi dem a dem a dem nag ba yoon yi xat ci Moussa lool ndax dem na ba jàkkaarloo géej gi ñuy tudde mer rouge tey muy géej gu mag muy baxrul qalzum bi jàkkaarloo géej gi Moussa kuy dox la mbooloo mi ci gannaawam ñii ngi dox ñii ngi yor seeni fas yor seeni ngànnaay boo geesoo ci sa gannaaw armée bi topp ci yow mooy ñëw nga xool ci sa kanam géej a fa nekk waaye rek téewut Moussa ku gëm yàlla la xam na ne boroomam tabaraka wa taala mi ko digal mu génn mu génn di dem du ko wacc moo tax yaqiin boobu moo tax deng-deng yi mënul woon a am ci moom même ñi àndoon ak Moussa sax ñoom seen bopp dem nañ ba tiit nag parce que situation bi néew na muy gaar nit te du tiit say noon a ngi lay dàq dem nga ba àgg ci géej goo xam ne moom foofa la yëf ya ci li doomu aadama mën a calcul boo geesoo say gannaaw say noon a fa nekk moo tax ñi ànd ak moom tiit ne ko in inna la mudrakoon noonu kat peeg nañ nu peeg nañ nu maanaam léegi suñ kanam léegi ci suñ gannaaw Moussa ci yaqiinam mu tontu leen ne leen kalla inna ma'iya rabbi sayahdiin saa borom laa àndal te moo may gindi moo ne ma woon génnal ma génn te xam naa ne du ma sànq bi mu ñëwee ba agsi ci géej gi lu am moom dafa naroon a xuus rek di dem waaye dañ koo digal ne ko sa yat wi nga yor dóor ko ci géej gi mu dóor ko mu xotti ku nekk mbeddum suuf mu gudd a gudd te yaatu Moussa jaar ca mbedd ma ak ñam àndal di dem ci biir géej gi ndox maa ngi ci ndeyjoor ndox maa ngi ci càmmoñ waaye mbedd mi ne siiruw rek mu jaar ci foofu na ak ñim àndal su seeni xol tëjuwul woon dañuy wàññiku dañuy xam ne ki yàlla defal lii du wëlbatiku di ko sànkaat ki yàlla may lii ay noonam di ko dàq ba agsi fii mu dóor yatam wi géej gi ubbi ko mu jaar ci dox kooku daal waruñu koo mën a jekku mukk waruñu koo mën a jekku waruñu koo mën a gañe waaye nag xol yaa tëju moo tax Moussa dugg dem ñu dugg ñoom it topp ci biñ ko toppee ba Moussa nekk ci digg géej gi ñoom it ñu ngi ci digg géej gi ñi xool gis ne Moussa bi muy génn géej gi te ñoom àggaguñ ci moom gis nañ ne lu Moussa weesu rek am ndox lay doon day delluwaat melaat na meloon ñu ne ah kon de wàññi jot na ñi geesu seen gannaaw gis ne ndekete ndox maa ngi toppoon ci ñoom moom it di booloo kon Moussa génn na ñoom des nañ ci géej loolu daal leen di gaar doon musiba moo xam ne mu réeréy la moo xam ne li leen ko teg mooy ay xol yoo xam ne yu tëju la kon xol bu tëju foofu lay àgg ci doomu aadama loolu mooy Moussa alayhi ak ak aw nitam bind la boo xam ne daf lay jox ci ak gàttal ne xol bi nga xam ne ubbikuwul ba nangoo nangu dëgg mën naa topp neen ba kero boroom di faatu ba kero alkandeem sax di ca nekk te du tee neen googee moom dëgg rekk la koy tudde nu jéggi jamono Muusa alayhi salaam ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yahuud yi ci seeni téere jàngoon nañ ba xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ay melokaanam yépp ba àgg ci turam sax xamoon nañ ko moo tax borom bi tabaraka wa taala ni mu ko misaale daf ne alladina aataynahum alkitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum niñ xame yonent bi mooy niñ xame seen doom yiñ jur ndax boroomi xam-xalum lañ jàng nañ ci seeni téere ba xam jëmm jooja taxawaay ba nu muy mel kawar ga na muy mel ak bët yaag waxiin waag doxiin waag fu muy jógeeg bu ñëwee fan lay wàcc xam nañ ko xamin wax ne amatuñu ci woon benn werante waaye nag dëgg googu duñ ko wane moo tax borom bi ne wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaqa wa hum yaalamuun ñoo ni ñuy xame yonente bi noonu la ñuy nëbbe dëgg googu ndax lu ko waral mooy xol yaa tëju safiya bint xuyay ibn axtab ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon xam ngeen ci famille yahud yi ci la bokkoon ci kilifa yahud yi dëkk madina ñoom ñoo doon ay bokkam ay baayam ak ay baay taxam ak ñooñu ñoo doon kilifay madina yàlla dogal mu mujj tuub ba nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam safiya daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee bi muy gàddaay jóge Makka ñëw ba agsi Quba nga xam ne àggagul Madina Quba dëkkukaay yahud yi dañ ko jege woon lool ñoom seen kilifa yooyu foofu lañu dëkkoon ne bi mu agsee ci e, village boobu ñu naan Quba nga xam ne bani Awf bani Amr ibn Awf ñoo fa dëkkoon nee na sama papa muy Xuyay ibn Axtab ak sama baay tax muy Abu Yaasir ibn Axtab ñoom ñaar dañoo xëy ak fajar dem seeti ko ak fajar lañ xëyee seen kër ne nan dem xubaa xooli gan googu ñu ne dafa ñëw ñu xëy fa fajar yendu fa nee ba bi ñuy ñëw jant bi sona nee na bi ñuy agsi ñu gis leen ñoom ñaar ñu géey lool di dox doxin wu yeex ne man xale bu jigéen bu ndaw laa ma daw gàttandu leen ak sama caawarteeg ni ma ko daan defe su ma masaan ñëw nañ ma daan gàttandoog yu mel na nee na xooluñu ma sax ndax am nañ lu leen xam naa ne ñii aw naqara nekk ci ñoom nee na ma dégg ñuy waxtaan ñoom ñaar ne sama baay tax Abu Yaasir mu laaj sama papa ko ahuwa huwa waaw ndax mooma ndax moom la mu ne ko naam wallahi moo ma kay waat naa ko ci yàlla xam naa ko ci aw melokaanam ak ci bindam ah nee na sama baay tax ne ko waaw léegi loolu lu ciy pexe nag nee na mu ne xanaa jàppe ko noon ba faw ba bari faatu adaawatuhu wallahi ma baqiitu noonoog moom rek ba bari faatu loolu lan ci xam kon ñooñu xam nañ ko borom bi tabaraka wa taala lim ne yaarifunahu kama yaarifuuna bi ñu demee seeti ko yendu fa bëggoon ñu ñëwee am nañ firnde yu leen wóor ne kii mooy yonente ba seen téere ya doon wax waaye luy pexe mu ne ko xanaa noonoo moom rek li feeg noo ngi dund kon ñooñu seetuñu dëgg seeni xol tëju na kon xol bu tëju noonu lay def nan la nit mën a ñëwee xam ne kii ab yonente la boo xam ne yàlla moo ko yónni wax ko ci seeni téere muy ci tawreet ak leen jiwñ ñi gis ko xam ko ba noppi wëlbati ku mën a giñ waat ne dañuy noonu ak moom ba faw loolu xol bu tëju rek moo ko mën yàlla nu yàlla musal ci xol bu tëju li gën a kéemaane loolu mooy suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne yéefar yi ëllëg yéefar yi buñ duggee jahannama yàlla nañ ci yàlla musal ba gis mbugal mu metti ma fa nekk bay ñaan sunu borom tabaraka wa taala delloo si leen fii ci àdduna ngir ñu mën a soppiku doon ñu baax borom bi nee na suñ delsi woon it nañ meloon rek lañuy ñu melaat mu ne bal bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qablu walaw ruddu la aadu lima nuhu an wa innahum la kaadibuun wax googee ñi dem ba teg seen bët jahannama ne lii mooy sawara di waat ne suñ delluwaatoon àdduna ay jullit lañuy doon borom bi nee na waxuñu dëgg suñ delluwaatoon àdduna it seen bànneexi bakkan ya nañ ko toppe woon rek noonu lañ ko toppe waat kon xol bu tëju mooy loolu mooy koo xam ne du gis dëgg mukk su waxee ne gis naa ko it gisu ko kon alqulubu alayha aqfaluha ibnu jarir tabar yi génn na ci sanad bu wér jële ci hisham ibnu orwa mu jële ci baayam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng laaye ji afala yatadabbaruuna alqur'ana am ala qulubin aqfaaluha nee na benn laay ji li muy wax danañ ci ñëwaat mooy xool alxuraan bu baax ba xam settantal ko day ubbi xolam déet borom bi daf ne afala yatadabbaruuna alqur'an waaw ndax duñ settantal alxuraan xool ko xam li muy wax wala xol ya dañoo am ay tëjukaay neena bi yonent bi jàngee aaya boobu am benn xale bu góor boo xam ne ci waa yaman la bokk mu ñooñu ñu ñu arabe lañ ñu dégg arab lañ xam nañ li laay ji wax ne xale bi ne ko bal alayha aqfaaluha ne ko xool yi kay dañoo am ay tëjukaay xatta yakuna allahu azza wa jal yaftaxuha aw yufarrijuha xol ya dañoo tëju xale bu góor bu ndaw boo xam ne ci ndaw yi la bokk mu ne ko xol ya kay tëju nañu waaye kañ lay ubbi ko mooy bu ko sunu borom ubbee rek yonent bi bég ca loolu nee na fa ma zaala shaabu fi nafsi omar radiallahu taala anhu xatta waliya fastaana bihi nee na xale bu góor boobu mësta jóg ci xelum omar ibnul xataab xam ne ku xelloo ngi ku juba ngi ku baax a ngi ne ba omar nekk xalifa jël ko mu bokk ci ñi ko jege lool di ko jàppale ci liggéey bi kon euh, aaya boobu loolu lay wax buñ xoolee lañ doon gis wala ñu koy nettali ci nettali ya woon it dañ koy gis ci suñ dundub tey mooy day mel ni histoire day jël siwaat boo xoolee noonu lislaam bis ne tey su fekkoon ne seeni xol ubbiku nañ kon seen xel du nekk ci continuer di xeex lislaam jàpp ne diine juñ fi war a mën a jëlee lañ wala juñ mën a wax faagaagal suñ xamee dara ci histoire xam fi l'islam jaar ak i noonam borom bi tabaraka wa taala di ko garde ba mu agsi wax ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun man mi wàcce alquran koy wattu waxaat ci xadis ne du dañ mukk ab kuréel di fi nekk boo xam ne bu fës lay doon nekk ci njub di xeex sax ci yoonu yàlla ba yowm alqiyaama nee na ba isa alayhi salaam wàcc bu wàccee ba nekk ci seen biir waxtu julli jot ñi ne ko demal nu julli nee na mu ne déedéet seen amir na jiite nee na daal di jiite yonente bi sallallahu alayhi wa ne loolu takrimatullahi hadihi al umma sunu borom tabaraka wa taala bu defal xeet wii la xadis boobu mi ngi ca saxihu muslim su fekkoon ne ñooñu seeni xol dara ubbiku nañ ci bañ xam ne diine jii diine yàlla te jaar na fi mu jaar kon seen xel du xalaat ci continuer di ko xeex waaye ca penku ak sow noonu lislaam yi ñu ngi jóg taxaw mënatuñoo muñ dara ci lislaam wala ci ak njullit di ko metitlu di ko xeex ci seeni kem kàttan te xeex boobu wóor na leen ne dañ koy perte su fekkoon ne xellu nañ wala ñuy jëfandikoo xiyaas réew mi ñu fi doon wax Union soviétique nga xam ne mooy ñi gënoon a noonoo diine ci kaw suuf ëppoon fi doole nag kàttan gu jéggi dayu ci lépp ci ay ngànnaay ci économie ci lépp xalaat boo xalaat ne doomu aadama war na fa mën a àgg ñu àggoon fa ak ni leen sunu boroom tabaraka wa def ci diggante bu gàtt tasaare leen ba nekkatuñ wenn xeet faf loolu su fekkoon ne xalaat nañ ko muy luñ teg seen bët fekkee ko boobaak léegi di fukki at ak nangam képp kon duñu kon ñu waaru ci loolu waaye xol ya dafa tëju te it bu fekkoon ne xalaat nañu borom bi tabaraka wa taala réewi àdduna yi fi ñu àgg tey ci économie ak ci kàttan muy ngànnaay lu doom aadama di jëfandikoo di ko défendre boppam wala mu koy xeexe wala ci man-man ci wàllu technologie muy xeeti xarala yoo xam ne jéggi na dayo su fekkee seet nañ man-man boobu ak li ñu xam ci wàllu organiser ak defar ak jekkal ñoo xëy xëy benn crise dal ci seen kaw boo xam ne kenn xamul fu mu jógee ci àdduna ñépp tiit dem ba réew ya doon dimbali nit ñi ci seen jëmmi bopp tey doon yu ñàkk yàlla xam na ne léeg-léeg ñu won la ci benn reportage ci biir Amérique luy xew loo xam ne da nga naan lii moom feneen la xëy na réew mu ñàkk ci Afrique la moo xam ne xiif moo fa nekk wala déet ay nit ñoo xam ne ay nangami téeméeri junni nit ndéeg matul ay millions sax yoo xam ne ay xayma lañ leen defal ci àll bi ñu ñëw dëkk foofa di leen indil ay ndimbal yoo xam ne dañ ko fay wàcc bés bu set ay camion di leen romb di leen sottil ay ndimbal di leen indil ay ndox loolu fan ko miine woon wax dëgg yàlla du foofa waaye lu indi loola won yoonu sunu borom tabaraka wa gannaaw mooy indi lu mel noonu doomu aadama du xett lu dul dafa delsiwaat ci diini sunu borom tabaraka wa dem na ba nit ña seen njàqare ak seeni i métit àgg na ci da ngay gis koo xam ne dafa luye woon këram di fa dund ba mu yàgg mu wóor ko ne mënatu la dem ndax lii muy am ñi koy tudde salaire mënatu la dundal boppam ak njabootam ak fay location nga xam ne lañ jëkkoon a tàmbalee mooy seen seen xaj yaag muus ya nga xam ne nañ ko fonke woon moo moo gën a raw sax niñ fonke doomu aadama yi xaj yooyu dañoo mujj récupéré ko yóbbu ko ci ay kër yoo xam ne kër yi garde ay mala lañ di leen sàmm ñu ne ah nun kat awatuun dundub xaj bi gardeel ñu foofu loolu lañ tàmbale woon di dem ci loolu ba mu yàgg mu wóor leen ne ñoom mënatuñoo dund fi ñu nekk mënatuñoo fay location génn nañ seen seen kër ñu génn nekk ci mbedd yi taxaw yor seen i bagage loolu moo indi bâche yu bari yooyu nga xam ne tànn nañ ay raison yu bare bari di ko fa def di ko ubbi nit ñi ñëw dugg foofu nga xam ne ay suñ ko waxee suñ ko waxut ay semestre lañ wala euh, nuñ leen mën a tudde waaye nit ñu jaaxle lañ yoo xam ne amatuñ fuñ dëkk amatuñ luñ lekk te loolu ba kañ nag tey day yokku nag maanaam fii ne ubbi nañ ay bureau yoo xam ne bés bu set dañuy xëy di inscrire ba ngoon nit ñi ñëw ne ah man de lott naa man de daanu naa man def naa nangam lu ëpp juróom-ñett fukki banque tey ci Amérique fayit nañ maanaam daanu nga xool euh, société japonaise bi ñuy wax Toyota nga xam ne moom moom moom kenn nattabliwu ne kooku mooy li ëpp doole ci àdduna te moom Japon la dëkk dañoo amoon rek benn local bu nekk Amérique di fa liggéey ci ay oto kenn xamul nu mu toll atum diggante deux mille neuf ak deux mille huit ak mille neuf rek ak at mi ñu dugg euh, ñetti million ci ay voitures yoo xam ne dañoo gis ni baaxul ba delloo nañ ko si delloosiwaat nañ ko perte ci ay milliards ci dollars loo xam ne kenn xamul nu mu toll ci local bi nga xam ne ci Amérique ci boppam la loolu lu tax ay question la yoo xam ne doomu aadama yi su fekkee ne dañ ciy waaru dañoo war a delluwaat gannaaw xam ne lislaam ji doonu diine ju ñuy xeex diine suñu borom tabaraka wa taala kooku benn tomb la mu des nag li nu ëppal solo mooy nun jullit ñi eh, aaja wonan lool suñuy xol ubbi ko jullit bi lim baaxoo mooy xolam daa war a ubbi ko loolu moo tax mu nangu lislaam waaye ànd nag loolu ne jullit bi moom ab jullit la bëgg a doon te moom lay wax ne moom laa ànd ak loolu biir jullit yi xol yu tëjoo ngi ci waliyaasu billaah te it dafa doon lu war a mën a nekk ndax jëmmi xol bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne sa yaram bi dafa am benn suux bu ci nekk boo xam ne su baaxee yaram wépp baax su yàqoo yaram wépp yàqu wax ne mooy xol kon wal na na ne xol dana ëyib dana yàqu anas bnu malik radiallahu taala anhu nee na kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam yuksiru an yaqul yaa muqallib alqulub sabbit qalbi ala diinik ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne mooy yonent bi ana say wax de ki taqoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ci këram nee na yonent bi lu bare bare bare bare daf daan wax naan yàlla yow mi nga xam ne yaay wëlbati xol yi yal na nga saxal sama xol ci sa diini ji nee na nu ne ko ah yow yonentub yàlla bi nun dey gëm nan la topp nan it li nga indi waaw ndax dafa am lenn looy ragal ne mën nanoo gaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna alquluba bayna usbuayni min asaabiillah yuqallibuha kayfa yasha mu ne ko xol dafa nekk ci diggante ñaari baaraam ci baaraami yàlla nu ko neex la koy wëlbatee kon moo tax jullit bi fu mu toll fu nekk war nay ñaan di wax saa boroom yow mi nga xam ne yaay wëlbati xol yi yal na nga saxal sama xol ci sa diine ji loolu ñaan la goo xam ne jullit bu nekk da ngaa war a saxal di ko ñaan ndéeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo ko daan ñaan jullit bi wërta dem ba jàpp ci naagu jàpp ne man mucc naa déedéet mucc moom li fekk sa ruux gi ak sa yaram bi ñu ngi ànd ngay dund bul jàpp ne mucc nga foo toll del ragal del tiit del ñaan del dellu ci sa borom abdullah ibnu omar radiallahu taala anhuma nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam li ëpp ci ngiñ bu mu daan giñ su daan waat li ëpp ci lu muy waate mooy wa muqallibal qulub wala laa wa muqallibil qulub wax laa wa muqallibil qulub waat naa ko ci ki nga xam ne mooy wëlbati xol yi nee na loolu mooy lu ëpp ci lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon doon waate kon foofu la nga fay jariñoo moo di ne xolub doomu aadama kat ne ab jullit laa rek bum tax nga ne kon man sama xol tëjootul nit ki mën naa doon jullit di julli sax di woor di dem di dikk di yëngu ànd ak nit ñi te xolam tëju ndax mën naa nóor ci ay jaaxaan wala ay biddaa wala yëf yi jëmut fenn ba noppi ne loola mooy dëgg suñ ko wanee dëgg mu lànk loola xol bu tëju moo koy def kon fi ñu jëkk a xool fi mooy ndax lan question bi mooy lan mooy liy tëj xol yi xol lan moo koy tëj ak lan moo koy tijj ñaari question loo xam ne suñ ko tontoo foofu la ñuy tëjee conférence bi incha allah lan moo koy tëj ak lan moo koy tijji ndax nu mën a mucc am na ay xomb yu bari bi ci jëkk kannaar bi jëkk ci buy tëj xol mooy al iraadu an al ilmi nafii al mustafaadi min tadabbur al quran xam-xam bu am njariñ nga won ko gannaaw loolu kànnaar bu mag la ci xol xam-xam bu am njariñ nga won ko gannaaw kooku mooy ngomb lu mag li nga xam ne mooy tëj xol yi xam-xam bu am njariñ nag buñ ko waxee mooy xam-xam biñ jëlee ci settantal alquran bul fàtte ne sun borom tabaraka wa taala dafa ne afala yatadabbaruuna alquran <coughs> mën nañoo taxaw tuuti xalaat xam ne settantal alquran moomu lu tax mu doon luy ubbi xol kenn ci boroom xam-xam yu mag yi nga xam ne dañuy dund ci réewi tubaab yi dëkk ci réew mu ñuy wax kanadaa day jàngal boppam ab wootekatub nasaraan bu mag la woon di jàng di jàng ba mu yàgg mu tuub doon ab wootekatub lislaam bu mag ku ñuy wax docteur Meller docteur Meller nit la koo xam ne wàllu science rek la jàng wàllu mathématique moo nekk ci bopp bi ak li ñuy wax logique muy mantiq yu mel noonu rek mooy xalaatam dafa mbir nu mu war a toftaloo nu mu war a mel ak xalaati doomu aadama ak lu ci aju moom jàppoon nañ ne ci Occident moom ay moroomam néewoon na fa moom ci boppam gannaaw bu mu tuubee mooy nett li nee na benn bis dama toog ba mu yàgg ma ne xaaral ma ñëw xool téereb jullit yi jàng ci génne ci ay erreur pour su may woo jullit yi man caa sukkandiku pour woo leen nee na ma jàppoon ne rek ku ñëw di liir si téere boo xam ne bi mu génneek léegi mat na junni at ak ñeenti téeméer ka ko génne di ab nitu kaw koo xam ne ca baadiya ba la nekk di dund ci ab désert gisul dara xeet civilisation jàpp naa ne paas bu ma jël wu nekk war na maa mën a génne lu mat fukk wala ñaar fukk ci ay njuumte nee na ma ñëw tàmbali di liir li ma jëkkëyam te gisuma ko ci benn téere beneen donte dañ koo taalif ci suñ jonni tey wala bu mu mën a doon mooy dama doon séentu ne téere bi comme que Muhammad moo ko bind te jàng naa ci histoire ay méthodes yu bari yoo xam ne jaar na ci dundam damaa defoon ne méthodes yooyu ci laa jëkk a yam nee na ma liir ba jeexal faatu Xadija gisuma ñu tudd ko ci ak lool ni mu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu baayam Abu Taalib gisuma ko doomam yu jigéen yi doomam yu góor yi gisuma seen faatu gi te loolu lu rëy li ci dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que doomam faatu nañ ba mu jeex seen yaay faatu bàyyam bi ko doon dëgëral faatu kon su fekkee moo taalif téere bi war na cee wax waaye nee na ñooñu seen i sax faf nekku ci nekkul ci téere bi nee na ma ne lii de dara la lii lii dara la nee na ma wëlbati xool gis aw saar woo xam ne suuratu Maryam la tudd ah nee na may séentu ne xam naa ne dama cee àggagul waaye saaru Khadija wala Fatima wala Aïcha ni ma xame ñooñu fiñ àggoon yonent bi seeni saar dana ñëw nee na ma jàng ba mu jeex gisuma turu kenn ci ñooñu sax foofu ci biir alxuraan nee na ma xool gis Mariama melokaan yi ñu ko jox ci alxuraan ni mu selle ak ni mu baaxee doo dugg ci benn téereb nasaraan ba fekk fa melokaan yu selle noonu ah Muhammad mi mi ngi bëgg a doy waar sallallahu alayhi wa sallam nee na mu wëlbatiku xoolaat gis ne Isa alayhi salaam ci aw turam tudd nañ ko ñaar fukki yoon ak juróom ci alquran te fuñ ko tuddee fu ne lu baax lañ wax ci moom ma xool Muhammad ci boppam mi nga xam ne la ma gëmoon mooy jàppoon naa ne mooy borom téere bi ma gis juróomi yoon képp lañ ko tudd ci alquran ba mu jeex ñeenti yoon yoo xam ne Muhammad la benn bi Ahmad la mu jeex mu ah, mbir mi nag kon jéggi na dayo nee ma ñëw ci benn aaya boo xam ne moom nee na falaa jeexale ne damaa xool gis borom bi ne afalaa yatadabbaruuna alquran walaw kaana min indi gayrillahi la wajadu fihi ixtilaafan kasira ne borom bi ne waaw ndax du ngeen settantal alquran su jege woon ci keneen da ngeen ci fekk ay contradiction yu bare bari nee na nun ci wàllu logique docteur Meller mooy wax danoo am benn principe boo xam ne suñ bëggee nattu ay wax yu mën a doon ndax jub na wala jubut nee na ay contradiction la ñuy seet waaye nee na ci histoire taalif mosuñoo dégg ku taalif ab téere ba àggal taxaw ne sama téere amul contradiction nee na fit woowu moom mosuta gis ku nit ku taalif bu noppi am fit woowu nee na loolu nag bi ma ci àggee ci alxuraan jàng ko ànd ak ne effort bu ne def naa ko pour génne contradiction gisuma ko ci laa ne lii kon yàllaa ko wax waaye Muhammad mënu ko wax parce su ko kon faaw ñu gis ay contradiction kon loolu fi la docteur Meller sukkandiku ba tuub kon jox nañu benn bind ci ne settantal alxuraan ni muy dugale nit ki ci biir lislaam war na noo xamit ne noonu la mën a dugale nit ki nag ci biir njub njub buñ ko waxee mooy sunna ak toog siraatul mustaqim waaye ba tey bàyyeegoon alxuraan jooju ba tey faaw nu dellusiwaat ci nu nit xool suñ xoolu bopp ak li ci borom xam-xam yi wax ndax yonent yi dañoo amoon seeni kéemaan yu leen yàlla jox ñii borom bi tabaraka wa taala da leen joxoon kéemaan ci wàllu kenn ku ne daal la nga dajal ci sa jamono dalaa jox kéemaan goo xam ne day jommal saw nit gis ngeen Muusa ako nitam la ko borom bi tabaraka wa taala jox dañ doon jabar far mu ñëw yoru yatam Isa alayhi salaam dañuy wax ne ci jamonoom wàllu médecine dafa avancé woon lool borom bi tabaraka wa taala ñëw jox ko kàttanu dundal ko faatu xam nga loolu moom mettin du faag fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla dafa wàcce ci moom benn kéemaan boo xam ne ginnaaw mooy yonente bi mujj ba kero àdduna di tukki kéemaan googu daa war a continuer ànd ak jamono lu ñëw lu ne rek mu ne ca mu jommal leen ci moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ci xadis boo xam ne xadis bu wér la mu ne ma min al anbiyaai nabiyun illa wa qad utiya min al ayaati ma misluhu amana alayhi al bashar wa innama kaana alladi utiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya fa arju an akuna aksarahum taabian yowma alqiyaama nee na alayhi salaatu wasalaam yonent bu nekk yàlla jox na ko ci ay kéemaan loo xam ne war naa mën a gëmloo aw nitam waaye man day kéemaan gi ñu ma jox wax yu bu ñu wàccee ci man la mooy alquran kon nee na nag maa ngi yaakaar ne yowmal xiyaam ñoom ñëpp maa leen di ëpp li ñu ma topp kon ndax wax yu boobu dafay des ba faw nit ñi di fi waaru nu ñëw ci benn benn tadabbur ci alquran alquran ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko doon xeex ñëpp wax jiñ doon wax moo di seytaane mooy dimbali yonente bi sallallahu alayhi di wàcce ci moom lii parce que ñooñu ay boroom xam-xami balaaxa ak fasaaxa lañu woon li ñu déggoon ci araab jàpp nañ ne suñ gisee araab yu féete kaw seeni arab ñi xam ne loolu Muhammad mii nàmpe fi ñoom mënu koo wax waaye seytaane moo ñëw di ko ko jox loolu ñoom ñëpp demoon nañ ba miin ko ba miin ko ba euh, jabari Abu Lahab ji sax kañ naan al awra bintu Harb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa naafila yi mu daan faral di def léeg-léeg mu dem ci kaaba ga di julli guddi dañ koo gis mu gëj koo def ndaw soosu bi mu gisatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn di ko def te fekk booba daa feebar daf ne arjo an yakuna shaytaanuka qad tarakaka maa ngi am yaakaar ci ne seytaane si la daan dikkal daf laa bàyyi kon loolu dalay won ne société bi ña weddi woon alxuraan ñëpp jàpp nañ ne lii moom du waxi Muhammad xamoon nañ ko ndax mënu ko ci ñoom waaye nag dañoo jàppoon ne seytaane moo ko ko jox iblis ak ñam àndal mu ay jinne ay seytaan ay yu mel noonu dëgg la alxuraan wàcce na ay alxuraan yu yu weddi loolu yoo xam ne da ko weddi direct lu mel ne li borom bi tabaraka wa taala wax euh, wa ma tanazalat bihi shayatin wa ma yanbagi lahum wa ma yastatiun innahum an isami la mahzuluun foofu borom bi tabaraka wa taala weddi na ne alxuraan ji seytaane wàccewu ko defe naa ne loolu mooy weddi woo xam ne ku gëm yàlla ku nekk bu alxuraan wàccee ne lii seytaane wàccewu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi gëm yàlla loolu da nga koy gëm waaye alxuraan ñi mu doon waxal ñëpp doonu ñu ñu gëm yàlla kon am na weneen tontuwin woo xam ne moo gën a tar moo gën a nangoo ànd ak xel moo gën a ànd ak mantiq muy logique boo xam ne alxuraan ci boppam dafa làmboo weddi ne seytaane waxu ko loolu mooy lan mooy aay yu bare bari dama ciy jukki rek tuuti borom bi ne wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim li yujaadiluukum wa in ataatumuuhum innakum la mushrikuun su fekkee ne da ngeen a topp seytaane ay bokkaalekat ngeen di doon waaw ndax seytaane ci boppam dafa dof ba bay wàcce loo xam ne day ñëw di ko say yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nee su ngeen toppee seytaane ay bokkaalekat ngeen ni doon jëmmi alxuraan ci boppam dafa làmboo loo xam ne dafa lay won ne mënta jóge ci seytaane seytaane mënta wax loolu inna almubadirina kaanu ixwaana shayatin inna almubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana sheytaanu li rabbihi kafura aaya bu fis boo xam ne day wax ne seytaane bi yéefar la beneen aaya fa wa rabbika la naxshurannahum wa shayatin tumma la nuxdirannahum xawla jahannama jisiya ëllëg danañ leen booleeg seytaane yépp tàbbal leen sawara loolu seytaane dana ko wax wa fa ida qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min alsheytani arrajim seytaane dana ñëw ne sooy jàng alquran muslul ci seytaane déedéet loolu menn xelum doomu aadama kon alquran ci biir ay tontoom ak weddeem yi nga xam ne ñu bon ñi dañ koo gëm ñu weddi alquran lépp doonul weddi yoo xam ne boo ko settantalee day ñëw rek ne leen loolu du noonu mu jeex waaye dafay làmboo ci biir itam loo xam ne ku ko jàng ànd ak sam xel beneen tontu lay doon boo xam ne sax booy seet moo gën a dëgër ba lay wax ne déedéet kon seytaane du ñëw taalif ab téere di wax di di ŋàññi boppam ci téere boobu ak di ci wax ne sawara la jëm ak di ci wax ne su ngeen ma toppee sawara ngeen jëm ak di ci wax ne su ngeen di jàng alxuraan na ngeen muslu ci man loolu mënta nekk beneen settantal bi nettalib abu lahab ci alquran abu lahab mën nañoo wax ne moo doon noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi gën a fés ci màkka ànd ak ne mbokkam mu ko jege la ndax moog baayam ñoo bokk ndey ak baay moog baay yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo bokk ndey ak baay wëlbatiku doon noonam bi gën a mage nim daan def mooy fu yonent bi génnee di dox mu dox topp ci moom comme seen mu wax ak moom su jàllee mu ne ko kaay bu ñëwee mu ne ko lu mu la doon wax mu wax ko mu weddi loolu rek ma doon liggéeyam Abu Lahab moomu avant faatu ci lu mat fukki at aw saar wàcc na muy suuratul lahab wala suuratul masad saar woow yi li muy wax ci gàttal mooy Abu Lahab mii di la xeex ci kéefar lay faatu te sawara la jëm aaya boobu wàcc jullit yi di ko jàng Abu Lahab di ko dégg di wax ne ngi may xas waaw Abu Lahab ndax ci jamono yooyu munul woon ñëw ci kanam nit ñi déclaré ne leen di seen alxuraan ji da ngeen a wax ne lu ci ne dëgg la te nee nañ man ci yéefar laay dee tey nag ma dugg ci lislaam ñëw déclaré ak duggam ci lislaam yëngatu bu tuuti boobu nga xam ne mën na koo def ci une minute képp mën na cee dajji lislaam bépp su ko defoon te dajji lislaam doo nga koy teeloon nag kon su déclaré woon gëmam rek dañuy wax ne alxuraan lu dul dëgg a ngi ci ndax nee nañu woon kii ci kéefër lay doon ci lay dee te sawara a jëm waaye loolu amul continuer na di xeex di xeex yonent bi di xeex lislaam bi ñuy jàng aaya bi muy dégg ba xëy faatu ci kéefër tàbbi sawara kon kooku day wane ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxut loolu de ki wax loolu mooy ki xam nit ka fa muy mujj kon alxuraan nii la mel waaye léeg-léeg nit ki mën naa ñëw ne la li ngay nettali ni loolu histoire la boo xam ne bu jàll est ce que yu mel noonu am na ba tey ci suñu jamono jii ñu dund ñu ne oh kay am na ba léegi. boo dikkee ci relation bi dox diggante jullit yi ak yahood yi ak nasaraan yi alxuraan noppiwu ci alxuraan daf noo wax ne. ñi gën noonu jullit ñi jullit ñi ñi leen gën a noonu mooy yahood yi ak ñii bokkaale waaye ña ca tane mooy nasaraan yi noonu la ko borom bi tabaraka wa taala waxe de la tajidan la tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu alyahud walladina ashraku boo xoolee da gis ne ñi gën a tar ak noonoo ci jullit yi mooy yahuud yi ak bokkaalekat yi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan liladina amanu alladina qaalu inna nasaara ñeneen ñooy nasaraan yi ñooñu ñoo gën a jege jullit yi ci wàllu cofeel loolu ndax nit ñi teg nañ ci seen bët kuy xool ku ne loolu danga ci teg sa bët junni at ak ñeenti téeméer borom bi tabaraka wa wàcce loolu ba suñ jonni tey boo xoolee li ngay gis mooy yahood yi ñoo gën a tar ak noonoo ci jullit yi ci nasaraan yi boo leen comparé ñoom ñaar waaye mbir mi nekkut foofu waaw ndax yahood yi mënuñu woon a dajalo ne kaay leen yéen yahood yi àdduna yépp nag nu weddi alxuraan tey mooy ñëw leen ñu génne ay déclaration wala ay décret yoo xam ne dañuy fas yéene jàpp jullit yi ñu doon seeni mbokk kenn du tuurati dereti jullit kenn du xotteeti wormaam kenn du fabati alalam kenn du fëkkati suufam suñ defee noonu la nekkoon ci seen alxuraan di kon mu dañ duutu doon dëkk waaye mënuñu ko noonoo googu mooy continuer ba suñ jonni tey jii ab yahoot mënta supporter ab jullit mënta nekk lu tax mooy ka bind yahoot bind jullit moom mooy ci wax alxuraan ji kon mm-hmm. kon bépp xol boo xam ne bu bu nëbbuwut la mbokki jullit yi bu dee settantal alxuraan du am sikki sàkk ci ne kii téere sunu borom tabaraka wa taala la kon kon xomb li koy jëkk sabab ci xol bi tëju kon mooy wan gannaaw alxuraan bañ koo settantal alxuraan léppam léppam kéemaan la ay arafam sax ay ay limi aayaam sax ay kéemaan a ngi ci ay limi aayaam ay kéemaan a ngi ci boroom xam-xam yi danañ di joxe misaal ci suratul baqara suratul baqara limub aaya ya ñaar téeméer la ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñaar téeméeri laaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn kooku buñ la lewoon ñëwal ba ci digg saar wa kooku aaya numéro lan lay doon maanaam boo boo jëlee deux cent nga séddale ko ci digg ba lu muy doon cent cent quarante boo jàngoon cent nga xam ne mooy wasatu suuratul baqara ne ci digg saar wa loo fay fekk wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaas wasat joojee nga xam ne mooy digg sóoratul baqara foofu ngay fekk suñu borom tabaraka wa taala ne def naa leen ngeen di xeet bi nekk ci digg xeet yi kon alxuraan léppam léppam kéemaan la kon mbokki jullit yi dana doon gàcce gu rëy ci ab jullit mu nekk ci kaw suuf di dund di dox mu ne ab jullit la alxuraan doon ab téere bu nekk ci ay loxoom mu di ko jàng di ko jàngale di yebal ay doomam ñi di ko jàng ba noppi mu wóor ko ne mbir mu leer nañ ñu ngi sax ci alxuraan mu won ko gannaaw di jëfe leneen loolu kum dal war ngaa tiit te yëg ne xomb yooya doon tëj xoli ñi jiitu ba wëttuwul tëj na sa xol ñaareelu xomb yi mbokki jullit yi moo di alkibru wal iraadu an il xaq rëy ak dëgg feeñ ci sa kanam ba noppi nga won ko gannaaw mm. borom bi tabaraka wa taala nee na ñi gëm yàlla su fekkee ne jàng nañ alxuraan ci seen kanam ñoom day dañuy yëg xol yu tooy dañuy sujjóot di sàbbaal seen boroom waaye ñooña duñu rëylu innama yuminu bi ayatina alladina ida dukiru biha xarru sujjadan wa sabbaxu bi xamdi rabbihim wa hum la kon rëy googi dafa doon loo xam ne day dox diggante nit ki maanaam rëy rëy lu sax lañ koy wax day dox diggante nit ki ak xol bu ubbiku diggante ak nangu dëkk innahum kaanu ida qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun yéefar yi suñ leen waxee laa ilaha illa allah seen rëy ga day daal di feeñ maanaam tawxiid mënuñu koo dégg su fekkee ne bokkaale ñëw na loolu mën nañ ko supporter waaye nag tawxiid moom mënuñu ko supporter loolu ay melokaan la yoo xam ne day wane ne rëy gi day tee nit ki xam dëgg même ci nitu Moussa ñooñu dégg nga ba mu waxee ne euh, la mu wàccee ci ñoom ci kéemaan attufaana wal jaraada wal xummala wa dafadia wa dama ayatin mufassalatin daf ne fastakbaru wa kaanu qawman mujrimin maanaam rëy moo dox diggante ak mën a def loolu kon mbokk jullit yi yow mi nekk ab jullit wattandikul ñu teg ci sa kanam lenn loo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa la jóge walla ci alquran mu sax doon loo xam ne lu wér la di tegtali lii kenn ku yàlla bind mën a tax nga woon loolu gannaaw kooku bind bi nga war a jële ci waxtaan wi mooy loolu su loolu amee rek xamal ne am ala qulubin aqfaluha ji ñëw na ci sa kaw sëb xol lay daal di tëju ak doo mën a mel ñetteel ba muy xombul ñetteel li moo di taatilu laql wa taslimu alqiyaadi li gayri lmaasuum nit ki xelam mi ko yàlla jox mu war cee jàngat mbir yi di ci settantal mu neen neenal ko dem jox ko nit rek ne ko mu xalaatal ma man awma ci saa bopp xalaat loolu ci gàllankoor yu mag la bokk te kenn ku ne borom borom bi tabaraka wa taala laa jox sa làmp bopp boo bu lëndam yaa ko war taal di nit fi ngay jaar làmp boobu mooy la ngay jàng ci diine xam kook sa dellu ci boroom xam-xam yeeg sa jàng ci ñoom maanaam la diine wax la alxuraan ak sunna wax loola mooy sab làmp jamono yoo ko wonee gannaaw xamal ne xol ba tëju na mel na ne làmp bañ la joxoon muy torse ba lëndëm ga ñëw na nga dugal ko ci sa di dox ci lëndëm gi te borom bi daf ne qad jaakum basairu min rabbikum fa man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alayha borom bi jox na leen ay làmp ku taal sab làmp di dox loolu sa xéewal la ku fay sab làmp di dox ci lëndëm nga yaa xam noonu la ko borom bi tabaraka wa taala waxe kon neenal xel mi la yàlla jox jël sa bopp jox ko ku yàlla musalul maanaam ku dul ab yonent ne ko loo ma xalaatal loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi loolu ci njaaxum yi la bokk moo tax mbokki jullit yi doomu aadama est bu jëfandikoo woon xelam mi ko yàlla jox rek sax xelam mi ko yàlla jox ndax nit mën naa xalaat nit ñëw fekk aw doj mu yettal ko boppam ba mu jekk mu teg ko fi béréb di ko jaamu xelum doomu aadama war naa nangu lool doomu aadama ak ni mu teddee ci kaw suuf ak ni mu bare pexe ñëw ci doj montagne boo xam ne nga daggee ci loo xam ne yaa ko daggal sa bopp ci saw simiñ yóbbu ko ci sa kër jekkal ko ba mu jekk wutal koy nopp ak i bët teg ko boo xëyee tàllal ko say loxo di ko ñaan loolu xel nangu na ko xol xol bu tëju rek moo mën loolu aw nag te li am ci kaw suuf ci ay doomu aadama yu yuy jaamu ay nag ëpp na téeméeri million ba ci suñ jamono tey jii boo demee Inde di fa fekk loolu te ay doomu aadama la ñu yor ay xel bu nag way saw sax ña koy dégg di raay ci yaram yi ndax jàpp ne loolu barke la nag ci boppam yàlla la ci ñoom loolu moo tax seen diggante jullit yi du du du du jag mukk hindoos yi nga xam ne ñooy jaamu nag yi seen diggante jullit yi du jag mukk fa end ndax ki jàpp ne lii yàlla la ba di ko jaamu ak ki koy rendi di ko lekk ñoo ñu wax dëgg yàlla waruñoo mën a waruñoo mën a daje waaye ndax xelum doomu adama su doomu aadama jëfandikoo woon am xelam aw nag wuy dem ak a dikk dana ko gis ne lii yàlla la topp ci moom di ko jaamu déedéet waaye ndax doomu aadama moomu yooyu boo koy wax da ngay jàpp ni yu la sore sori la loo xam ne da nga naan loolu sax xëy na moom nun nun suñ intelligence nun weesu na foofu nun sénégalais yi waaye weesuwu ko de ab xabru nga ñëw ci xabru fekk ay weñ yoo xam ne ministre métallique bi moo ko defar nga ñëw samp ko mu wër xabru bi nga ñëw di raay di def ci saw yaram loolu xel am xel nga fa xabru boo xam ne boroom dafa faatu ñu defar ko ba mu jekk takk ba mu jekk nit ñi ñëw suulal ko seen bopp bàyyi ko foofa dem nga am say aajo jóge bërëb bu sori ñëw ni borom xabru boobu ka fa nekk kooku nga koy ñaan si wala bokk ko ñaan si wut ci boppam it da ngaa bëgg a tawasul ci ñoom ngir ñaan ndax mu nangu loolu xel mu mucc fekkewu ko kon xol yi tëju na mbokk yi faaw ñu delloosiwaat xel yi ubbi ko ak xol yi te loolu li ko mën mooy dellu ci alquran ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon yooyu su amut ñooñee ngay yéem naan ñooy borom xeram yu jëkkee naan ñooñu dañoo dofoon ndax ña nga doon ràbb defar aw doj yett ko ba àggal walbati ko di ko jaamu yow itam yaa ngi defar sa sa métallique ba àggal dem ca machine si ba mu defaral la nga ñëw di ko jaamu ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare nag yurul jeex yoo xam ne nit ñaa ngi koy jaamu ci kaw suuf tey te dara tekkiwu ci dara loo kañ kañ koy askanale sax kooka diglewut loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglewu ko borom bi tabaraka wa taala diglewu ko li nekk ci sunu réew mi tey ci ay béréb yoo xam ne nit ñi dañ ko jàppe béréb yi sell di fa jaamu yàlla wala ñu jàpp ne suñ fa jaamoo yàlla fa lay gën nangoo loolu mooy ña ca tane waaye ñenn ñi dañuy ñëw faf di jaamu dërëb ba loolu moom mooy li ci bari léegi da gis bërëb boo xam ne nit ña dañ fay daje bés loolu moom man teg naa ci sama bët nga xam dañoo am bés ci semaine bi boo xam ne suba ak àjjuma gune dañ fay daje muy bërëb boo xam ne dañ ko lay ba mu rafet miire ko su nit ñi dikkee dañ fay sugg di xalangu ci suuf si def ni nangam xeeti jaamu yi kenn xamut lu mu doon boo leen laajee lii lu mu doon ñu ne ma diw sàngama fi julli woon diw sàngam jaamu bi yàlla la dox na ci kaw suuf waxtu julli jot na mu julli demu yoonam yow bu waxtu julli jotee julli yow te dem saw yoon loolu ay mbir la yoo xam ne wax dëgg yàlla mu ngi ci suñ biir te ñàkk jëfandikoo xel moo ko waral ñaan ku dul yàlla ak jaamu ku yàlla xel mu mucc fekkiwu ko waxuma la diine de waaye xel mu mucc rek fekkiwu ko surtout nag alxuraan ni mu nu waxe loolu nee na walladina yad'una min dunihi maa yamlikuuna min qitmir xoolal loolu walladina yad'una min dunihi maa yamlikuuna min qitmir ñi ngeen di ñaan di leen yaakaar te duñ yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na ñooñu amuñu qitmir qitmir xam nga lu mu doona doomub tàndarma boo ko xollee Euh, am na lu weex loo xam ne mooy sës ca ca doom ba saal bi lu weex loolu ko muur nee na lu toll noonu sax amuñu ko man amuñu dara fii ci àdduna suñ leen ko defar la woon duñ ko mën a defar teg ca ne in tad'uhum la yasma'u du'aakum su ngeen leen ñaanee dégguñu seeni ñaan moo xam ñoo ñi ngay ñaan duñ yàlla aw xiram woo samp la wala xàmb la wala ab xabru la wala béréb la wala lu mën a doon nee na in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum su ngeen leen di ñaan seen ñaan yooyu dégguñu ko walaw sami'u mastajaabu lakum même suñ jàppoon ne ñi ngi dégg seen ñaan gi sax mënuñu leen a mënuñu leen a wuyu maanaam mënuñoo nangu la ngeen di ñaan ndax amuñu ko wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum bu ëllëgee seen bokkaale gii ngeen di def ñoom ci seen bopp ñoom ñi ngeen koy defal dañuy set ci yéen wecc weddi la ngeen loon defal wala yunabbi'uka mislu xabiir wala yunabbi'uka mislu xabiir ku deñ kumpa moo la mën a jox xabaar bu mel nii kenn mun laa jox xabaar bu mel nii ku dul sunu borom tabaraka wa kon aaya bi juróomi mbir dajane ci yoo xam ne su ko nit ki déggee dana wéetal boroomam su ko déggee ngom ba li woon ci xolam muy kànnaar bi dana dañ lu jëm ci wàllu tawxiid moo di ka ngay yaakaar te du yàlla amul dara kooka lam yaakaar moom ci yàlla la ko yaakaare benn ñaareel bi boo tàllalee say loxo di ko ñaan déggu ko ñetteel bi su ko déggoon itam amut lu la jox ñeenteel bi mooy bu ëllëgee yowmal xiyaam dañuy dekki mu weddi la ne la soril foofu yow bokkoo ci samay àndandoo yow mi ñëw di bokkaale ci sama béréb wala yu mel noonu kooku day weddi set wecc ci yow ne la loolu digaluma la ko woon juróomeel ba mooy xabaar bu mel nii ka ko joxe mooy sunu borom tabaraka wa taala kon juróomi yëf daje na ci jooju aay joo xam ne boo ko toppee da nga jëfandikoo sam xel da nga mucc itam ci bépp xeetu bokkaale ci mbindeef yi nga xam ne ay mbindeef lañ comme yow moo xam nit lañ wala leneen ñeenteel ba ci kànnaar yi tëj xol yi moo di al israaru ala dunub di def ay bàkkaar ba noppi nuur ca di def ay bàkkaar ba noppi nanguwoo tuub dellu ci sa borom tabaraka wa taala doomu aadama ji ginnaaw moom dub yonent faaw nag muy tàbbi ci ay bàkkaar ci jamono la nekk joo xam ne mucc ci ay bàkkaar jafe na ndax boo ma nee ne du ma wax lu bon duma ko def du ma xool lu bon moom mënoo koo wax ndax foo jaar ku ne lu bon a nga fa kon mucc ci bàkkaar moom jafe na fii nu toll tey doomu aadama ji néew na sax mu mën a xëy ba ngoon te deful bàkkaar moo xam ci waxam la moo xam ci jëfam la moo xam ci yemuy déglu la moo xam ci yemuy xool la kon nag nit ki su fekkee natt bu mel noonu dal na ko lan la ko war a defe mooy sa yaram wi ni nga xamee ne saa boo xëyee ba ngoon bu nekk faaw mu tilim boo xëyee la ngay jëkk xalaat mooy fan lay jaar ba sangu door a mën a gisee nit ñi nga jàpp ne itam bàkkaar yi mënut ñàkk moo xam yoo yëg la wala yoo yëgut kon bu guddee jàppal ne sa waxtu sangu jot na nga tuub dellu ci sa borom ci bépp bàkkaar boo xam ne boo defoon la su ko defee borom bi tabaraka wa taala jéggal la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci xadis bu wér jóge ci abu hurayra mu ne inna al mumina ida adnaba kaanat nuktatan sawda fi qalbihi jullit bi su fekkee ne def na benn bàkkaar benn tomb bu ñuul lay doon ci xolam ci xadis ba ca des dafa wax ni su continuer di ko def di ko def bu yàggee xol bi lépp day ñuul maanaam xol bi day yàqu su boobaa xol ba tëju na waaye nee na tomb bu ñuul boobu fa in taaba wa nazaa wastaghfara saqula qalbuhu su fekkee ne nag tuub na tomb bu ñuul boobu nekkoon ci xol bi su ko tuubee jéggalu yàlla nee na xol bi day mel ne dañ koo xaccaat xaccaat dañ koo raxasaat ba mu set wecc fa in zaada zaadat amma su fekkee daa bàyyi tomb bu ñuul boobu ci bàkkaar bi mu ne ci xol bi ëllëg jot mu defaat beneen bàkkaar yi day yokk rek bàkkaar yi day yokk rek bu yàggee nam ko waxe xol ba day ñuul ba àgg ci duutu xàmmee lu baax ak lu bon duutu xàmmee lu baax ak lu bon yonente bi alayhi salaatu wasalaam teg ca mu ne fa dalika raan alladi dakarahu llahu fi kitaabihi kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun nee na loolu mooy tilim ji sunu borom tabaraka wa taala di wax ne ñooñu di yéefar yi dañoo dem ba tilim fees nañ dell seeni xol yonent bi nee na mooy loolu kon mbokki jullit bi góorgóorlu sa kem kàttan fexe ba lépp lu ñuy wax ne bàkkaar bu mag la bul ko def ni ngay dawee njaaloo di ko dawee sàngara dawee ko sa kem kàttan wax lu teguwul ci yoon moo xam jëw la moo xam rambaaj la bul seqi sa jéego jëm ci lu xaraam bul ko xool bul ko déglu moo xam misig la moo xam lu ko nuru nag kooku su fekkee ni yooyu daje ci yow yaa ngi jéem a mucc koon ci bakkaar yu mag la ca tegu mooy suñ la nattoo ba nga tàbbi ci benn bakkaar tuubal dellu ci sa borom tuub gi mooy loola bul ko defati da ngay fas yéene li des ci sa dund fasatuma ko yéenee def teyit réccu naa li weesu woon su ko defee tuub gu may noon moom la sun borom tabaraka wa taala di mag teyit loolu ci li ñuy demee ba xol bi ubbiku nag jullit bi nag bu ab xolam ubbikoo am na ay mandarga yu koy wane xol bi ubbiku nga xam ne kànnaaram dañ na am na lu koy wane ba ci jiitu moo di al iqbaalu ala la siyama fi mawasimi al xayr wa muwasalatu taaati bada inqidaai tilka al mawasim bokk na ci lii wane ni nit kii moom xolam bi tëjuwut wala su fekkee tëjuwoon na it kànnaar ba dañ na moo di nangoo jublu nag jaamu yàlla jublu ya jaamu yàlla rawatina di gën a tànn waxtu yi nga xam ne waxtu jaamu yàlla yu tar la war a doon lu mel ne weeru koor lu mel ne aj lu mel ne joxe asaka lu mel ne rafetal jëme ci jaamu yàlla yi nga xam ne dafa xaw a diis ci yaram wala mu diis ci xol mu sawar ci di ko def te it li ñu tudd ay mawaasim muy tereeti jaamu yàlla yi muy lu mel ne koor su weesoo itam mu gis ne mi ngi continuer di topp yàlla ba tey kii da doon naafila ci weeru koor koor ga jàll na teewul bu guddee mu yor dogam boo xam ne faaw mu julli ay rakkaay yoo xam ne naafila la kon kooku na rafet njort ci ne kànnaaram ba moom dañ la ñaareel ba moo di ashuuru bi xalaawati al iman inda dikrillahi wa tilawati kitaabihi nit ki yëg ci xolam ni ngëm yàllaam gi mooy li gën a foor fi moom dem ba àgg ci neex ci moom nga xam ne àdduna ak li ci biiram bu demoon ba yoratul dara waaye ngëm yàlla ma ngi fi loola doy na ko du tee xolam day sedd amul problème waaye nag bu dara sikkee ca ngëm ga rek doonte àdduna ak li ci biiram mi ngi ci loxoom kooku daf koy diis kon kooku day wane ne kooku xombam kannaaram dañ na wala amul kannaar ak itam buñ tuddee yàlla tudd yàlla buñ ko waxee waxul rek waxuñu rek ne allahu akbar wala lu mel noonu waaye looloo ngi ci biir waaye jataay yu mel ni nit ko sawar ci di ca déglu ba ca jógee man caa jariñu wala mu tiim alxuraan di ko jàng di ko settantal wala muy déglu ñi di ko jàng mu yëg xolam ba nam ca neexe yooyu yépp day wone ne kannaar ba xol ba ubbiku na ñetteel ba mooy alxawfu min allahi inda almasiya wa rajauhu bada fi'li taa moo di ragal sunu borom tabaraka wa taala foo toll rawatina su fekkee ne nit ki dafa tàbbi ci mooy yàlla su mooy yàlla mooy yàlla ànd ak tiitaange ak njaqare ak aw metit na gëm ne xol ba xomb newu ci waaye nag def ma yàlla gu rëy ba nopp mu doon fi yow lu woyof woyof mel ni defoo dara kooka jàppal ne xol ba tëju na saa bu defee topp yàlla dana ca am bànneex waaye mu yaakaar sunu borom tabaraka wa taala nangul ko ak topp yàlla am loolu itam ci lii wane ne xol bi ubbiku na ci la bokk ñeenteel ba moo di salaamatu sadri min alchaxnaai walbaxdaai walkalaam fi nnaasi bi gayri xaq mooy fexe ba ab dënnam mucc ci nëbbal ab jullit ak noono noono goo xam moo tax nga nëbbal ko ko dëgg la nit ki danañ ko bañ ngir jëfam danañ ko bañ ngir jëfam waaye nag jëmmi nit ki en tant que jullit la buy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah di julli di woor kooku sañoo koo nëbbal ak mbañeel ngir ngir jëmmam waaye ngir jëfam nag bu ma loola mën naa nekk kon fexe ba sab xol féex xam ngeen ne qissab abdullah ibn amr ibn al aas ca saxaabi yi ba mu gisoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog ci jàkka ja ba mu yàgg am waa ju ne jalañ ci biir jàkka ji ak njàppam mu tooy daal di julli ñaari rakka ñëw toog ci jataayu yonente bi nuyoo te bi mu daataan ñëw yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa am lu mu waxoon dane woon bunt bee de am na ku ciy bëgg a jaar koo xam ne ci waa àjjana la bokk nes tuuti waajoojo ne jalañ def noonu ca ëllëg sa ca waxtu wa yonente bi sallallahu alayhi wa ne bunt bee am na ku ciy bëgg a jaar koo xam ne ci waa ajjana la bokk nes tuuti waaja ne jalañ même waaye démb ja yorati am njàppam julleeti ñaari rakkam ñëw toog ci jataayu xam-xam bi bi mu ko defee ñetti fan nag Abdullah ibn Amr ibn al ne waa ji faaw ma topp ko nag ba xam lu muy def mu génn mu topp ko ba ca këram bi mu dikkee mu ne ko man day dafa am lu dox sama digganteeg sama baay mu mu génne ma kër ga may wut fu ma làqu ba suba mu ne ko bisimilah toogal daal di koy dalal ci këram boroom xam-xam yi ñi ngi jële foofu masala ñu ne su fekkee ne nit ka sàkku xam-xam bi muy def mënu koo def ci lu dul créer lu dul noona mu wax ko wala mu jëfe ko walla mu jëfe ko su boobaa loola day dagan su fekkee lori doomu aadama newu ca su fekkee lori keneen newu ca moo tax Abdullah ibn Omar ne ko ibnu Amr ibn al-As ne ko dafa am lu dox sama digganteeg sama baay mu génne ma kër ga dëgg la loolu amul waaye nag lor nekku ca te lim ci séentu moo gën a rëy kon faaw ñu bàyyi dawaabit yooyu xel nit ki wax na loo xam ne lu amut ngir di ko sàkkoo xam-xam léeg léegi mu doon jëf euh, benn boroom xam-xam dafa jóge maghrib dégg al imam ahmad ibn hanbal fas yéene dégg ci moom xadis bi mu agsee laaj ko ñu ne ko ah al imam ahmad kat mi ngi ci kaso bi xamul nu muy def mu jekki ba guddi mu yëngu ci ak kër mel ne sàcc ñi yooxu mu tëb ñi jàpp ko ñu ne sàcc baa ngi ñu jël ko yóbbu ca kaso ba ndax mu mën a gisee ak imam ahmad seenu xeer ci xam-xam foofu la àggoon mu giseeg moom ci biir kaso ba sàkku ci moom la muy sàkku ci xam-xam génn ñibbi dem këram Abdullah ibn Amr bi mu defee noonu waa ji bàyyi ko fa mu toog ba guddi xool gis daal waa ji ni muy def mooy waxtu julli wu jot mu dem julli ji bu ñëwee toog ci këram bu guddi jotee mu julli ay rakkaam yu néew daal di tëdd bu fajaree it dana julli rakkaam yu néew buñ noddee buñ salaatoo mu dem julli ji gisul daal lu ko wóotaleeg nit ñi bi mu demee ba ñetti fan yi mat nag mu toog toog ak moom ne nag dama laa soxla ndax man mii la ma la waxoon ne la dara daa dox sama diggante ak sama waajur loolu amut loolu amut waaye dafa am lu ma dégg yonent bi wax ko ci yow mii loola moo ma indi daal di koy wax ñetti fan yooyu yépp ak li yonent bi wax ba noppi moom waajooju mu dugg ci bunt mu ne ko li ngay def laa bëgg a xam mu ne ko ah man de nii nga ma gisee daal loolu rek laay def awma leneen lu may def mu ne ko dara dara amul leneen mu ne ko déedéet mu ne ah, kon baax na man maa ngi def bi mu demee ba won ko gannaaw mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko lenn de laa xam ne euh, moom mu ngi ci sama mi ngi ci man sama digganteeg yàlla mooy lan mu ne ko musuma tëdd ak guddi mu wóor ma ne am na noonoo gu nekk ci sama xol bi jëm ci ab jullit loolu musta Abdullah ibn Amr da ko boo boobii la ne ko boobu la mu ne ko boobu la kon mbokki julli di fexe ba sëb dënn mucc ci loolu xéewal gu rëy la dënn bi nag su muccee làmmiñ bi faaw mu mucc looy wax lu ne loo xam lay wax lu dagan ngay wax ci nit loo xamul wala nga jëmale ko ci moom loo xam ne lu tegu ci yoon la bi ñuy mujjee <coughs> bi ñuy mujjee moo di at taladdud bi nawaafil al ibadat qiyaami leyli wa siyaami naafile yi maanaam jullit yi fa ñuy rawantee mbokk jullit yi du mooy farata yi ñu nodd far nga dem julli ji farata kooruk farata jot nga woor nga am alal génne asaka foofu du fa ñuy rawantee waaye fa ñuy rawantee mooy naafile yi naafile yi julli guddi yi sa diggante ak sa borom koori ngàtt nga yi nga xam ne sa borom rek a tax nga di ko def ci jamonoy tàngoor nga mën a muñ naan muñ lekk ci koor goo xam ne néewuñ la farata la ci yow ci def lu baax jëmale ko ci ku ñàkk jëmale ko ci ku ci aajowoo foofu mooy géew bi nga xam ne nit ñi fa la ñuy rawante yàlla xam na ne léeg-léeg nga nekk ci ci béréb bi jaamukaay yàlla yi ci lu mel ne koor wala yu nuroog moom dangay gis yoo xam ne dangay ngay xeeb sa bopp am na góor goo xam ne góor gu siiw li ñu naan ko Yaasin Turki la tudd man bi ma ko njëkkee gis ci màddina nit ki day ruus maanaam waxtu tahajjud julli tahajjud xam ngeen ni mu guddee de maanaam imaam ja la muy jàng moom moom néew nañu ko mën a muñ jàng mu yàgg ànd ak rukkoo yu yàgg ànd ak ay sujjóot yu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg Makka ak Madina mu seen tahajjud wax dëgg yàlla dafa métti waaye góor googu xam naa ne li may jàpp mooy soixante-dix ans moom ay atam du ko yées du ko yées wala su ko yéesee lu néew lay doon benn tànk la yor bu taxawee nekk ci biir taxaw tahajjud bi yorut sax aw yat woo xam ne ci lay jàpp benn tànkam boobu lay taxawee suñu yi lu mu yàgg-yàgg benn tànkam boobu la yor moom lay rukkoo buñ jógee taxaw da gis nit ñi sonn di diju ay jotaay ñu bari dañuy diju di eh, gappuru bu imaam di bëgg a àgg ci kii ñu door a jóg waaye moom abadan doo ko gis benn tànkam boobu la yor moom lay taxawee mujj na sax mi ngi ci internet bi am na mbokk yu ko jël ci photo ko ci benn jawaal ba ba yóbbu ko ci internet bi nga xam ne boo ko xoolee danga koy gis ci biir mbooloo mi ni muy jullee ak benn benn tànkam bi am na benn bis émission spéciale télévision bi ñuy wax ak dalil mu génne ko ci waajooju dafa mujj dem ba siiw te moom amul soxla ci nit ñi xam nañ ko xamuñu ko yu mel noonu moom dafa ñëw rek di julli si comme ñëpp bu julleem jeexee mu dem waaye boo ko seetloo yow ci sa jëmmi bopp da ngay da ngay xeeb sa bopp kon da ngay yëg ne xol bi nag bu demee ba ubbiku force bi ak kàttan gi nekkatul ci yaramu doomu aadama ji waaye xol bi nag moo koy jàllale bu boobaa kon yàlla na sun borom tabaraka wa taala defaral defaral nuy xol ba nu mën a gis ñi nu féete kaw ci jaamu yàlla ndax nu ma leen a roy eh, ci ñi nga xam ne ñoo nu féete suuf allahuma ya muqallib alqulub bi adlika wa xikmatik sabbit bi rahmatika qulubana ala diinik wa aqimha ala alxaq wala tuziqha bi suui acmalina bacda id mananta calayna wa hadaytana ila alislam rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh